asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan ñu ngi leen di nuyu fii si GRTS ñu daal di ànd ak yéen si seen programme bi leen di isil xew-xewi jamono ngeen ànd ak seen xarit Mama Dieye ñu isil leen naka boppi xibaar yi jukkil leen naka bi ci gën a fes di bés bi nga xam ne moom la mbootaay àddina si jagleel jigéen yi ci àdduna bi yëpp ngir ñu mun a seet toog waxtaanee ko fitna yi nga xam ne moom moo tegu jigéen yi waaye tamit seet naka lañ leen di doolele ci seen wàllum koom yooyu ak yeneen waxtaani jamono fii si programme bi waaye naka la te dugg ci biir programme bi gaa yi dañoo dal di jaajëfal ki nga xam ne suma tanta la nekk ca Grand Dakar ca Sénégal di ajaratu Nafissatou Diaby mi nga xam ne moom ma yónnee mu ba bii ne ko génne nag waxtaan a jigéen yi si seen bés maagal bii nii di ndokkale nag jigéeni àdduna bi yëpp rawatina nag jigéeni Gambia di leen wax rek ne jël leen woy bii nii ñu bégee leen ko di leen naan uh, happy celebrations weeri maaci bu amé juróom-ñetti fan ci at bu nekk ci la mbootaay adina si jaklel jigéen aduna yépp ngeen ñu mëna a seet naka eh, li nga xam ne moom la ñoo yëngu jafe-jafe yi nga xam ne moom am jëm kanam yi ñu am ak na lañ naka la ñoo def ba gën leen a jëmale kaw ren naka tomb bi nga xam ne moom lañ tànna mooy naka lañoo ñoo daxee fitna yi nga xam ne moom mooy tegu jigéen ñi wala boog tegi leen fitna yi nga xam ne moom la ñoo jànkuwanteel waaye naka fii si suñu réew tomb buñ taama mooy euh, naka lañoo def ba jëmale wala boog dooleel jigéen ñi si seen i koom ren naka euh, ñun niñ koo doxalee mooy dañoo dal di seet naka jigéen yi nga xam ne ñoo nekk sa suuf suufa suuf ñuy jaay ma si marché yi yi jaaykati kobo yi jaaykati légumes yi ak ñi nga xam ne ñoom itamit si loolu la ñoo yëngu ngeen ñu mën a dimbale seeni i njaboot kanam ma ànda naka ak stress yi ñu xuus nag dugas si marché Serekunda bi la waxtaana nag ak jigéen yi ci li ñoo yëngu ñu méngale ko ak tombo at bii ni nga xam ne moom la jigéen yi taana si celebration bi maa ngi ñaan kay celebration bi mu dem si kanam ak borom eh, réew mi maa ñaan mu dem ci kanam ak ñun jigéen yi ñu ngee góor ñu ngee dimbale suñ suñ njaboot yi nguur gi tay moom tay mu dimbale ñu loolu moo nekk sama waa bi jaay bi neexatut ay foraatu rek la waaye gannaaw yaa ngee foraatu di si am sa wërsëg santa yàlla ba mu baax man lu ma gisee daal jigéen mu nekk war nga jóg nga daanu sa doole ndaa nga mun a am doole su dee nit mun na la jàppale tamit dafa fekk nga daanu sa doole mun na ci jàppale waaw. bëgg naa su ma amee ku may jàppale ma bàyyi jaay jën bi ma seet beneen business boo xam ne utee naa jaay jën bi ma def ko parce que gis nga jaay jën bi mu njëkk ba tane woon na waaye léegi tane parce que na ngay gis léegi jën bi dégg la foofu nga day am sa wërsëg nga mun a dimbale sa jaboot waaye léegi jën bi. gars yi dañ la nuñ ko dee amee du dee bari soo dañ la dee jaay ba mu jeex li nga si dee am du dee bari comme bu njëkk ba soo su dee am nañu ku ñu jàppale comme ni xaalis tuuti mu nga seet sa business bu nga war a def pour nga am ci tuuti tuuti nga seet parce que jaay bi dégg la dañ ci dee am sa wërsëg parce que ñu amee lu ëpp lii tamit baax na. fii luy suñu problème fii fu ñuy toog pour jaay mooy suñu problème amu amuñu fu ñu war a toog fu ñu jaay. fu ñu suñu amee gën lu ñu war a galaas suñu jën tam place boobu amuñu ko da ngay dem uti sa gën ba pare nga war a am fooy toog pour jaay wala nga galaas su desee pour galaas ko doo am foo ko war a galaasee waaw loolu mooy suñu problème ji nga yoon bi lañ dee toog ni ñu mun a foraatu pour dundal suñu njaboot yi jàppale suñu njaboot ak suñ jëkkër yi waaw léegi foo su nekkee ne nguur bi dafa jóg pour dimbale leen yow ban fànn nga bëgg mu dimbale man mutal ñu fu ñu wara tok rek fu nga xamne di nga tok kenn du la di stop nga mëna xoslu pour nga di jappalé sa njabot pour elik waaw. ma ngi dégg tamé yaa do wax wali galaas bi. wa wali galaas bi tam dañ ci dé sonna trop surtout su nawet jotee ni dañ dé sonna dañ dé nek di wër galaas léeg sa gën di yaaxu waaw. nga ñëw perte da ngay jël ale jambu ñëw pour jaay ba pare do am loy galaasee léeg nga daw si soo demee si géej bi guddee ba pare nga ñëw pour uti galaas doo am galaas foo dem rek galaas fu mu ne nii léegi bloc 5 dalasi la soo jaayee doo mun a génne sa xaalis nga ñëw daanu il faut nga demaa leb xaalis mun a dem xosulu waaw. bagage si bi yomba rek lañ bugga because ñun dañ soona bidon yi diwlin 900 suñ ko jëndee 900 ñu jaay ko bidon rek lañ day am dañ soona lu ñoo ñaan marchandise bi yëpp wàcc ñun ñëpp borom njaboot lañ ñu am jàmm su marchandise bi du uh, duñ dunda ban fànn nga bëgg ñu jàppale pour marchandise bi yomb rek ñun fii lañ yaakaar fii lañ dee fayale suñ doom school fii lañ dee dunde lu ñoo bëgg rek marchandise yëpp wàcc loolu mooy suñ problème man kay lu ma bëgg man tamit ma am lu ëppale waaw nga fu mu nekk nii su nekkoon am na ku bugg taxaw ne daf la bugg a yoo fa nga ne fan la la mun a jàppale ba nga passé fi su fekka am naa dimbalekat di ku may dimbale waaw mu jàppale ma daal ma dem ci kanam wa yàlla moo mun lépp di <laughs> baax na jërëjëf fukki at juróom-ñeent maa ngi fi de wañ man de wañ man man juk juróom-ñeent at daal bi yaay jaame taxaw ba te maa ngi fii nguuram gi nguur gu neex la amee ku ko bañ xamula ko bañ fii am na jamono kenn mënu fa tëdd ku fi tëdd ñu rey la samedi daa nga jël ba yóbbu ko foyee ren di ko bësee nga fekk fa xelee bopp yi. waaye léegi gis ko waaw. mbiri jigéen ñi moom mbiri ñoom. gën dimbali bu baax bu baax jigéen ñi son nañ fii la ñu ne ba bët set ñu leen la xas sam ñoo xam ne buñ lëggee xoslu du dee duñu xam luñu lekk da nga xëy di góor faral di dara sa jabar dikk ci marché bi. gis naa ko suñ kër ko xam ne ñaari xat ñu ngi ci benn soose ñaari xat mooy Casamance ñeenti jabar laa amee ak fukki doom ak juróom ñoo bokk benn kër ba bu set jabar yaa ngi xusloo demul ci kenn waxuñ kenn dara ñu daan seen doole di liggéey dimbali jigéen ñi ku leen dimbali dana baax de ku leen man jigéen ñooy sama yaay jigéen ñi man ñooy ci laa xam ku ne jigéen moo bon dëkk ci sa ndey bi nag dafa xat fi ne dafa bouché ñii nga tëpp garage ñii nga fii ñii nga fële fi ne place moom yàlla rek xam nga wasak moom yàlla moo koy maye maa ngi ci loo seventy years fi nii te am na ñoo xam ne mën nañu maa jënd su may doom mën nañu maa jënd waaye jigéen ñi baax na dimbali leen baax na trop dañu sonn trop am ñoo xam ne fi la nekk fi ba ten bala eh, five ñu ngi dikk fi la ne ba ten ko la ñu door ñibbi am ñoo xam ne dañoo fanaan ci àll fii fanaan fii marché bi doxoslu daan seen doole yi am na ñoo xam ne ñu baax lañ ñëpp nag baaxul wax dëgg ñëpp nag am na ñoo xam ne ñu doy waar la waaye ñëpp nag am na ñoo xam ne dañoo sonn tayal a tax Fatou Diatta Fatou comme ni nga la ko ni ni nga ko déggee yow tey suñ la waroon a jàppale yow foog nga ne ban faana lañ la mun a jàppale. di ñun kay suñu jàppale ci dund bu seer bi jàppale suñu njaboot yi gën lu lu ñoo jënd rek fuñ ko jaay rek mooy gën a neex suñu amee fuñu jaay suñu jaay rek dafay gën a yomb waaw loolu fii fii fii foo leen nekk nii xanaa dafa am da fi am ay jafe-jafe. déedéet xam nga fii amul jafe-jafe wante. yow yaa nga jaay li sa moromaa nga jaay keneen naa nga jaay li yéen ñëpp beneen njaay bi la su fekkee ne njaay boobu ni nga kii am na beneen façon kii am beneen façon njaay bi dafay gën a gaaw rek waaw suñu amee feneen ñu ko jaay rek baax na waaw man loolu laa xalaat boo gisee niñ toogee nii sax laañ bi yëpp suba gi jigéen la dañ leen di jàppale bu baax parce que mënoon ngaa taxaw nga ne xëy na ñii dañ may yàq wala ñii waaye doo foo loolu da nga leen di jël def na seen yaay ñooy bokk xëyandoo fii ba wàcc am na ci koo xam ne mi ngi nii di doog a paak boo ko xoolee njaayam jeexagut gis nga ko nii doom yi moo leen di fayal school yaa ngi dégg moo yor këram dépassam efitinam mi ngi nii du ma fi bàyyi ma fenn yaa ngi dégg lu leen mën a jàppale daal ah ci wàllum xale yi ci la war a gën a mën a doon man man li ma gis xale yi moo sonal jigéen yi man loolu laa gis xale yi moo leen sonal njàng mi moo leen sonal dund bi moo leen sonal. luñ góor yi nag xanaa sonal non ñun so góor ñi pour sonal nañ jigéen non góor ñi xam nga nit neexut a yor. doomu mën ta matal saa yoo xëyee li la yàlla wërsëgalee soo xëyee loolu nga koy mën a jox dem doo mën a joxe loo amut ana saan nga mais góor ñi ñu gën a takkuwaat nag te gën a jàppale jigéen ñi loolu daal laa gis gën a takkuwaat te bañ a ragal daal bañ a am ah, yow mu ngi mu ngi wane ne yaa ngi jaay te jaay bi jeexangut léegi fu mu nekk nii dañ na bési jigéen ñi pour dooleel leen yéen foog nga ne ban faana lañ leen war a dooleel dëgg la man boo ma laajoole dinaa ci sawar lu ma tontu parce que